ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi di suivre suñu seen bii di IYAT TV ginnaaw loolu ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew. yéen a ngi teewlu IYAT TV tey nag suñu taxaw seetlu mu ngi jëm rek ci kii di président Macky Sall ku ne xam na ne actuellement nii Sénégal fi mu toll nii ci gàttal yoratuñu président buur lañu yor ndax Macky Sall taxawatul taxawaayu président de la république Macky. taxawul taxawaayu président de la république ndax bu ngeen mag yi ba mu ñëwee ba léegi ba mu ñëwee ci réew mi ba tey dafa jël lii di état di ko xeexe askan wi rawatina opposition bi mboolem koo xam ne ni àndoog moom rek mu ngi lay fexee mu ngi lay fexeel subangoon guddi bëccëg ngir nu mu la tëjee ci kaso bi ba dootoo mën a génnate bay tala wax waaw jël ñi nga xam ne ñooy magistrat yi mbooleem kuy àttekat di leen xeexe encore sukkandiku aussi ci ñi nga xam ne ñooy autorité administrative mooy ñi nga xam ne mooy gouverneur préfet sous préfet et cetera mooy li mu leen foogoon ne Macky Sall dafa jël administration Sénégal bi yépp maanaam di leen xeexe contre ñi nga xam ne ñoo àndut ak moom waaw ba pare jël ñi nga xam ne ñooy hauts fonctionnaires fonctionnaires yi nga xam ne tey jii nii ku ci mel ne kële ci nekk euh, ca direction générale des élections mooy kenn la Fall ak ñu mel ne moom ba ci sax ministre de l'intérieur bi nga xam tey moom moom moo ko yilif di leen xeexe askan wi kon askanu Sénégal fan lañ jëm bu ñu demee ba ñi leen waroon a taxawal wëlbatiku jàmmaarloo ñoom di leen xeex kon ñi ngi ci guddi goo xam ne bët setagul ñu ngi ci guddi gu bët setagul waaw te Macky gis ngeen lii mu nekkee nii gis na ne mi ngi koy def te dara xewul dara yëngatuwul xat demul dara xewul moo tax bis bu yàlla sàkk ñuy gis muy def lu gën a pire te dara du ko ci fekk. xam ngeen ne Macky Sall moo fi waxoon en 2016 <clears throat> en 2016 Macky Sall moo génnoon fii taxaw wax ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ngeen baal ma ci tubaab yi nag. <clears throat> maanaam ci gàttal dafa waxoon ne maanaam dinaa faagaagal opposition bi benn par benn ba duñu tekkeeti dara. yéen a ngi teewlu IYAT TV maanaam dañoo am li nga xam ne mooy constitution. kii dafa saaga li nga xam ne mooy constitution Sénégal Macky Sall bépp réew bu am démocratie amul benn njiitu réew bu ñemee sañ a taxaw di wax lu mel nii maanaam ñëpp di la dégg te maanaam amul benn benn benn benn benn benn artu boo xam ne artu nañ la ko. njiitu réew bu bu bu bu man njiit est-ce que dana taxaw di wax lii ne dinaa faagagal mbooleem ko ànd ak man ba doo tekkeeti dara te ni mu ko waxee noonu ko defee ni Macky Sall waxee ni daa faagagal mboolem ko ànd ak man nam ko waxee noonu la ko defee te dama ciy sepp kenn rek mooy kii di Ousmane Sonko Macky Sall mu njëkk a salfaañe àqam ak yelleefam daal di koy dàq fële ci inspecteur ga ma nekkoon ne mooy impôt domaine ga buddi ko fa sànni ko ci àll bi jàpp ne dafay torox wala dafay tambaamalu suñ borom jël ko yëkkati ko def ko ci xolu sénégalais yi ñëpp bëgg ko di ko bëggee mu gis ne kat kii dafa mel ne daf may jéem a diir mbagg may xaaral pareeguma ci moom. topp ko di ko teg yi mu yi mu koy teg dossier bu mu monté boobu essayé mu monté beneen dossier bu ñu monté mu essayé mu monté beneen ba tey jii nii nag mu ne léegi nag dootuma sukkandiku ci li xam mooy dossier baal ma dem doole ndax kii gis naa ne ku rëy bopp la te ku am gàllaaj la. xaar leen daal ma demee ak doole doole moom jàpp naa ne moo man dëgg su ma demee moom ci doole dinaa am li ma bëgg loolu moo waral tey jii nii kii di Thiendella Fall taxaw yoon décidé nañ jox Ousmane Sonko li nga xam ne mooy ay fiche de parrainage am Thiendella Fall lànkan kandaare ne Ousmane Sonko du daal nix dara duma ko ko jox ndax dañu ko génne ci fichier électoral bi. malgré yéen a ngi teewlu IATV. Euh, décision justice wàcc na. mais defuma ko sama yoon newu ci daa fa wax na ci mais defuma sama yoon newu ci senaa wax na ci mais joxewuma sama yoon nekku ci kon damay wax ne nekkatuñu ci état de droit Macky Sall buur la yori buur bu yori dagam la Macky Sall buur la bu yori dagam di buur di bumi fi mu toll nii lu mu def rek jàpp na dana ko jig te damay wax ne gis nga Macky Sall billaahi waxuma la dara waaye li mu def Ousmane Sonko bu ko jigee rek ma xam mooy mbër ndax da koo tooñ depuis le début dafa tooñ Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne nii war naa mën a tax mu jàpp Ousmane Sonko di ko denc kaso bi lu dul jaay doole rek rek rek ak maa yore pouvoir waaw te Macky Sall damay wax ne man dafa salfaañe li nga xam ne nii mooy constitution bu Sénégal daf ko jaxase jaxase koo xam ne ni jàpp na lii bis bu fi jógee te kenn topp ko billaahi ma xam ne Sénégal ko ñëpp yam ndax Macky ku ñu war a topp la Macky Sall ku ñu war a topp la mandat d'arrêt international la war a bis bu jógee ci bopp réew mi. nañ defoon hygiène après waaw te kenn ñemewu ko wax dëgg ñi fi daan wax dëgg ku néew jàpp na leen dugal ci kaso bi ñi fi ñi fi defee ku néew nii kenn ñemewu dootoo wax ndax ku wax ñu jàppal dugal ci kaso bi da ngay invité ci télé sax ñu fekk ko ñu fekk ko fa yanu yóbbu ci kaso bi ci réew bu ñu naan réew démocratie la kon Macky Sall jàppee turu boppam président moom buur la jàppee boppam waaw ba léegi xam ngeen ne yi moo fi daan dem ci këri diine yi. nan leen Sonko faalewul yoon faalewul état respecté wul benn état de droit lu ko neex lay def day génne xale yi ñuy xeex ay terroriste la yor ah dafa yor ay nervi moo tax nit ñi dee fi euh, nangam mi mor yi fi dee yëpp moom la di maanaam jaxase Ousmane Sonko askan wi kilifa diine yëpp sax daanaka ñëpp gis nañ seen position fi ni kilifa diine yi ñu ci bari dañuy maslaa rek mais kenn ci ànd toog Sonko ndax diabolisation bi nga xam ne ni def nañ ko ci ñoom te xamuñu la xew ñoom itam xamuñu carrément li xew ci diggante Ousmane Sonko ak état bu Macky ak état bu Macky Sall bii ñoom ñëpp dañoo jàpp Ousmane Sonko nitu fitna li Macky Sall wax e ndax xam nga président bu yàlla defee mu ñeme yàlla maanaam bañ nit ki dina tax mu di ko kereel yoo xam ne nii ku dégg da naan ah jàpp naan day président en tant moom du du sosal nit loolu ngay wax loolu ngay wax alors que li muy wax yépp ci Ousmane Sonko ci moom la nekk Macky Sall mooy terroriser nañ ñi mooy rey nit ñi moo leen di tëj kaso kenn ñemewut a wax kenn wut a génn kenn ñemewut a wax wax sa xalaat ci réew mi képp ko wax lu méngoowul ak li mu bëgg mu jàppal tëj ci kaso bi terroriser askanu Sénégal yépp talim war a lijjanti ne fi ne fang dajji lijjantiwu ko topp benn nit depuis 2021 ba léegi Macky Sall liggéeyul ci réew mi benn nit la topp mooy Ousmane Sonko di fexe nu mu ko faagaagalee te xam na ne bu dee mbirum yoon rek mënu ko faagaagal mu ne léegi nag xaaral ma jaay doole def lu ma bëgg a def su boobaa xanaa kenn mënul ci man dara ndax maa yore pouvoir dafa fàtte yàlla dafa fàtte yàlla te gis nga Ousmane Sonko damay wax nit ku gore moo nekk noonu barke alxuraanu karim ndax gis nga mars 2021 maam euh, euh, nu mu tuddati événement 2021 yi bi nga xamee ne gars yi xeex nañoo xeex xeex xeex xeex ba gagné nar a def seen mobilisation dem palais da leen ne eh kaay leen toog bu kenn dem palais nañ ko gunge ba 2024 ci kàttanu yàlla ñu tëgg suñuy élection sénégal yi fal ki ñu bëgg a fal mais bu ñu def loolu xam ngeen ne kii du nitu fi na kii bu doon nitu fi na du def lii te Sénégal yi yëpp ànd ak moom ah mu ne leen bu kenn dem pale toog leen fii danañ ko gérer ci kàttanu yàlla ba vingt 2024 bu 2024 jotee ñu def suñuy élection ku sénégalais yi fal ñu xam ne loola ndax man bëgguma jël nguur ci li nga xam ne ni maanaam mooy Euh, lu dul démocratie ci lu dul yoon te Macky Sall moo woon fii wax Ablaye Wade ne nañ ko fekk pale buddi ko génne ko pale ba te Ousmane Sonko mës ta wax lu jege loolu te bu yàlla sàkk ñuy jël ay waxam. di ko yéen a ngi teewlu IATV naan moo fi wax naa ay gatsa gatsa moo fi wax nangam nangam loolu alxuraan ko ñu a wax gatsa gatsa an na nafsa bin nafsi gis nga nit ki mënoo dëkk ci ñu lay dóor te doo fayu mënul ne. mënul ne te gis nga Sonko li muy def nii yépp dañ ko sës ci miir bi nga kañee sax boo ko dugaloon ci ci néeg ni ko cawi xiir bu yàggee mu daw engagé la mu daw song la nañu bàyyi seen xel yi ñuy fowe ba pare nag jaboli si ko fi ne Ousmane Sonko amul benn benn benn kër maanaam këru taskatu xibaar goo xam ne daanaka bëgg nga ko maa ngi wax ci moom lu rafet ndax man man man daal damaa waaru man dee fois damay toog ba yàgg ma naan est ñun Sénégal gii ñu nii réew la est-ce que réew la est-ce que Sénégal am na indépendance parce que yii fii xew ni doo mën a comprendre carrément lii lan lan moo war a mën a tax mu man fee mën a mu war a xew injustice beeg jaay doole gi ak itam maanaam ñàkk ñàkk luwaa gi man dama naan lii billaahi bàyyi woon Sénégal mu bañ a am indépendance sax moo gënoon lii ñu des ci mbuumu njaam ndax lii fi nekk dafa metti gis loo mën a loo war a mën a wax saafara ko boo ko waxee ñu ne doo ko fi waxee tëj la ci kaso bi yàqal la sa avenir pour lan kon damay wax ne il est temps lii jeex tàkk nag te niñ ko mën a defee du lenn lu ñu taxaw xeex ko ndax am na loo xam ne mbéjum kanam la borom a koy fajal boppam. te Macky Sall bis bu ñu ko seetaanee nii lim bëgg mooy toog ci réew mi ba ba doyal jox doomam mu toog. yéen a ngi teewlu IATV. mbaa ba xool keneen ku mu jox waaye pareegul sax pour joxe réew mi jërë ngeen jëf ñu leen sant di leen gërëm.